mbokk yi tedd yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñëwaat nañu ak yéen ci sunu émission bi nu tuddee tafsirul qur'an tabaarakallahu ci micro bi seen mbokk Oustaz Mor ci xarala gi seen mbokk Abdul Thiam ñu sant borom bi subhaanahu wa taala ci fekkewaat gi yal na yàgg di nuyu auditeurs yeeg auditrices yëpp rawatina ñi ni àndal ci daara ji di wéttali konteeg ñun ak fu ñu mën a ne di itam doomu daara yëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na nu yàlla nangul xam ngeen ni émission bi ñu ngi ànd ci ak Orabank ñu ñuy wéttali ci yoon wi ak Grand Moulin de Dakar tabarakallahu comme ni nu doomu daara yëpp di wéttalee ci daara ji tabarakallah ñoomu saada Oustaz Naba Niang Oustaz Malick Diop daaral kitab wa sunna imam Pape di ko seet di ko ñaanal yàlla yàlla gën a yokku ci ñépp tabaarakallaahu jamono yi jamono yi libbët la yal yàlla yokku tan ci ñëpp tabaarakallaahu di nuyu oustaz Jim Mouhamad Soxna suñu wëllaree commandant ji nekk fële ci saint ñu ngi ñoom ci daara ji tabarkal la ñu ngi woon ci suuratu Ali Imran mooy suuratu ñetteel suuratu numéro 3 ñu tàmbali woon ci aaya juróom ñaareel bi ما وخون لاني بروم سبحانه وتعالى دا فا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب هن ام الكتاب تي برم خم خم يي وخني نياتي ايه يي جيك تي سوره نيميرو 6 موي سوره الانعام اك يينين نياتي ايه يتغالو تي même suuraat bi muy aaya téeméer ak juróom fukk ak benn juróom fukk ak ñaar ak téeméer ak juróom fukk ak ñett yooyu ñoom lañu ñu tuddee ummul kitaab kitaab ma ni la woon bul tayel demal nga jël sa kaamil nga dàq ci koor nga xool lan la yàlla santaane te wax ko ci aayaat yooyu le ñoy umul kitab umul kitab moy bazu téré bi moy bazu téré yàlla bi moo borom bi mune mo wacce téré bi minu amna ci téré bi ayatun ay aya muhkamatun yu leer nañ yu leer nañ yo hunna umul kitab wa ukhar amna yenen yo xamanteni leerul ci sa bop da fay laaj nga dem gis borom xam-xam mu tekantalal lako motax mutashabihat minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat tere yoy ay yoy nak fa amma alladhina ñi nga xam ne yi nga xamne nasikh nañ leen maanaam tey aaya yi nga xam ne dindi nañ leen ci téere bi ak aaya yiñ ci delloo siwaat xam nga borom bi waxoon nañu ci suuratu baqara mu ne ñu ci suuratu baqara borom bi newoon nañu dana jekki-jekki rocci di roof borom bi dina jekki-jekki ci yenn aayaat yi indi yeneen yu mu dugal yoo xam ne mooy gën a arrangé ci sunu dund maa sax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha loolu la borom bi waxoon wane ni dana am dana ko def moom tamit wante fa am alladina ñi nga xam ne fii qulubihim mi ngi ci seen xol yi zaygun ak jeng lànk dëgg moo nekk ci seen xol yi ñoo ñooñu day fa yattabiuuna dinañu topp rek maa tashaabaha yi nga xamante ni bii dafa lënt yooyu lañuy topp rekk di critiquer di wax minu ci téere bi ayaat yooyu nga xamante ni ñoom ñoo leerul ñoom la yàlla lëmës tënk ko nga xam ne du laaj nii rekk jàng nii rekk pour xam li ci xew dina laaj nga ta'wil ko dina laaj nga ta'wil ko aha laaj nga ta'wil ko alxuraan nag mënul ñàkk ta'wil mais ñoom dañ koy topp ibtiga al fitna ngir bëgg rek ku ñu critiquer dañ koy topp ngir bëgg ku ñu critiquer moo tax loolu la ñuy topp rekk di coow rek alquran nag téere la boo xam ne dafay laaj toujours ñu am ñu koy taawil waaw waaw yàlla tudd na ko xam nga taawil mooy firi taawil mooy firi loolu mooy taawil tawil mooy firi firi firi nag soo yokk déggee da ngay am jumtukaay booy jël def ca la nga soxla pour gën ko mën dégg loolu mooy tawil loolu tax yonti yàlla yuusufa yonti yàlla yuusufa bi mu géntee géntam ga fukki biddéew ak benn jant bi ak weer wi ñu di ko sujjootal comme ni ko saar wa nettale inni raaytu ahada achara kawkaban bim ko géntee te gént ga jur coow non seulement mu jur coow mais mu jur xeex xeexu kujje ba la ca juddoo juddoo ca ba yàlla dogal mu nekk buur ba ay mbokkam ñëwee fekk ko mu toog ñu di ko màggal dafa ta'wiil gént ga dafa ta'wiil gént ga ndax dafa ni way juram haada ta'wiilu ru'yaaya min qabl sama genti ga de piri maa ngi gis nga kon piri sama genti ga firi maa ngi hada tawilu ruyaaya min qabl amna benen so soo demee ci suratul a'raf borom bi mi ngi wax ni hal yanzuruna illa ta'wila hal yanduruuna illa ta'wiila يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله جسنا من يوم خارون لدول بريمي كيف يكسي كيف يكسي دنكم ديكو الدكو بعد ما سورة الأعراف مغاو وخاتنا كو انكور تي سورة يونس سورة يونس مني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولما يأتيهم تأويله نيجي اكسبليكي دي واخ دي خوس تي واخ لو ني جيكول تي بليغي اكسبليكاسيون يي بريمي يكسي وول تي نيو با تاي بو ديمي تي سوره النساء loolu itam ñëw na fa dalika xayrun wa ahsanu wa ahsanu tawila wa ahsanu tawila kon alquran mënul ñàkk tawil am na ñu koy bañ nag di wax ni tawil moom waru la nekk ci téere yàlla bi waaye cey buñ ko dul woon tawil coow lu rëy lay jur ndax léeg-léeg nga soxloo lu nga xamante bi boko tawilul ko deg mu ngoog tawil bok na ci waxinu arab aha ñëw na ci ay bayt ñëw na ci domaine bu nek ci xetu xetu xam-xam yi tawil ñëw na ci domaine bu nek inshallah wante borom bi neena wama ya'lam du xam ta'wilahu pirimi deug deug pirimi deug deug monoko pek kan moko pek illa allah kudul yàlla yàlla rek ko xam mais tawil mënul ñak nak muni wante wa raasixuuna fi ilm wa raasixuuna ñi géeju te sori lol fi ilm ci xam-xam te mooy ñoom yàlla dénkoon na leen xam téere yu njëkk ya ba noppi ñëw ñëw dugg ci diine lislaam li diine lislaam di wax ci téereem bi fekk ne ñoom jotoon nañ koo xam ca seen téere fekk ñoom jotoon nañ ko xam ca seen téere ñooñu ñooy arraasixuuna fi l ilm albaaliguuna fi l ilm yaani fi kutubihim altawrat wal injil arraasixuuna fi l ñooñu suñu déggee alquran wax dara duñ ca xuloo duñ ca xeex ndax dañuy xam ne li alquran wax dëgg la lan lañuy wax wax na dañuy wax ne aman naa saxal nañu bii ci li alquran wax li alquran wax ñoo alquran ñoo ko déggoo ñoo ci ànd dëppoo nañ ci d'accord nañ ci kon gëm nañ ko ndax loolu gisoon nañ ko ci téere yu jëkk ya amanna bi ndax kullun lii alquraan wax ak la ñu jotoon jàng yépp miin indi rabbina ci sunu boroom la jóge muhkamaat yeeg mutashaabahaat yi te kiy wax loolu fekkoon na mu nang mu jàngoon tawraat dégg ko lool ñëw alquraan wax mu ànd ci li alquran wax ni nii laa ko fekke woon ci téere yu njëkk ya kon nag dégg naa alquran confirmé na ma lama jàngoon kon alquran nangu naa ko yaquluuna amanna bi kullum min indi rabbina kullum min indi rabbina waaye gis dëgg ba noppi teg ci sa tànk déedéet gor du ko def ku baax du ko def كل من عند ربنا لني وخ وما يذكر دو دو جارينيو دو وارو دو جارينيو تي دو وارو تي القران جي نيكو يالا واتي جوكو يوننتي الا اول الالباب لدول كو ام خيل تي جيفانديكو خيلام كو ام خيل تي جيفانديكو خيلام كو مو جارينيو القران اها uh xam nga boo amee kuddu kuddu nga am ko ñu teg ñam wi nga ñëw peg fële kuddu gi dugal ci sa loxo boo lakkee yaa jëfandikoowul jumtukaay bi la mën a musal ci lakk gi mu ngoog moo tax bu la yàlla joxee am xel da ngay utiliser xel ma ku amul xel nag du jëriñoo alquran parce que alquran li muy wax kuy kuy xalaat kuy xalaat moo ci jëriñu moo tax muy wax ak borom xel yi ulul albaab وللنهى اها يتفكرون يعقلون yooyu yëpp alquran di ko indi c'est parce que boroom xel lay waxal boroom xel moo tax nit ñi dañu war di utiliser seen xel pour di dégg alquran aha ñooñu nga xam ne ñoo gisoon téere bi mu wax ak ñoom alquran ñëw wax ak ñoom ñu gis te ñaari téere yi bi leen comparer dëgg la ñu nangu ñooñu ñooy wax baat yi may bëgg a wax ñoo naan rabbana yow sunu borom yi laatu tuzigh yàlla boo jengal yàlla boo tarxisloo qulubuna sunu xol sunu xol yi yàlla boo ko tarxisloo maanaam fi ñu accroché wu jàpp fi yàlla boo nu fi jële baada id naa ginnaaw bi nga ñu gindee xamuloo ni nangu dëgg nangu dëgg cër la nangu dëgg cër la gis dëgg ñëw nangu ko cër la mais nag ki ko nangu tey bu mu xas mukk ki koy nara nangu suba ki ko nangu démb bu mu xas mukk ki ko nangu tey li am solo mooy nangu ji rekk nangu dëgg ji rek laa tusir yàlla boo jéngal xulubanaa sunu xol yi baada is hadaytanaa ginnaaw bi nga ñu gindee ba noppi yaanu mayoon démb tawraat ci yàlla Moussa wax ak nun ne am na kuy ñëw nga may nu injil yonti yàlla Isa wax ak nun ne am na kuy ñëw alquran ñëw melo ya mu joxe woon ak misaal ya mu joxe woon dëppook waa ji ñu nangu ko yàlla yàlla boo ñu ci génnee yàlla boo ñu ci génnee wahab lanaa yàlla nu may milla la dunka mu ci yow rahmatan yërmande rahmatan teraanga innaka naka yow antal wahaabu yaay mayaakon bi teraanga jooju mooy sax ci njub wahab lanaa min dunka rahmatan rahmatan boobu mooy sax ci njub yaani eh, sabbit naa alal yàlla yàl nag nu saxal ci njub njub lu am solo la ci dundu nit yàlla rek kay maye njub moo tax dañ ko ñaan rabbana yow suñu boroom innaka naka yow jaamiu naasi yaay dajale nit ñi ginnaaw boo leen faatee ba noppi allahu akbar yàlla mooy dajale nit ñi ginnaaw bu leen faatee ba noppi seet ci morgue bi teg ci corbillard bi dugal ci biir bàmmeel bi mu nekk fa la soob sunu boroom suuf si jaxasoog yax yeeg yàpp weeg perkaal ba waxtu jot sunu boroom wax ni jóg leen ñépp jóg kenn du des sunu borom ne damay tiitaroo geste boobu maa leen di dëkkal te duma jaxase yaxu kenn nag moroomam ala an nusawiya banana ala an nusawiya banana même bu fekkoon fausse commune moo am ñu dajale ay nit ci biir bàmmeel sulandoo leen sunu borom dana dekkal ñépp te du jaxase yaxu kenn nag moroomam ala an nusawiya banana innaka jaamiu naas kañ li yow min ci bis boo xam ne laa rey ba sikki sàkk amul fii ci bis boobu ne dana ñëw kenn mënul fexe ba bisu penc du ñëw laa maxaalata kaa inun laa maxaalata foog mu ñëw bis bi foog bis bi ñëw inna Allah naka yàlla La yuxlifu du foose du wuute al miaadu rendez-vous bi mu tëral ne dana dajale nit ñi kenn ku ci répondre kenn ku ci répondre question yi yalla di poser elle wala kenn ku ci nek répondre tontu ci laaj yi nga war a séq ak sa moroom ëllëg am solo la boo ko dul wax du ko bàyyi xel rekk dangay dem ba fowee sa dund te bari na ñuy def naka sudul noonu walla am fit yenn fit yi walla di jëfandikoo yenn jëfandiku yi ci pénc yi ñàkk a bàyyi xel ci bis booboo tax te day ñëw mbokk bi daf ma laaj keroog mu ne ma ñi dee dañuy tëdd rek te di jàpp seen njàmbur ma ni ko am na ñoo xamante ne bii seen fit yaa nga ci seen digg bopp am na ñoo xamante ni ñoom seen mbégte ya ma nga ca seen biir xol ya sedd guy ndax ku dugg bàmmeel di nga xamagum nooy def ak sa borom en attendant en attendant mi ngi mel na ñu ñëw ci tribunal bi fourgonnette bi indi détenu yi ñu woo ñaar ci kanamu juge bi kii ñu àtte ko condamné ko dix ne ko demal toog fële xaar bu gaa yi dem yóbbu la kii ñu àtte ko relaxé ko di xaar tribunal bi jeex pour mu dellu këram ñoom ñaar seeni yëg-yëg du benn ki ñu relaxé xelam dana dal mais que ñu tëj dix ans wala ñu tëj ko giiru dund souci ya muy nekkee jànnaxe ba ak jaaxle ba ma nga ca boppam ku dugg ba mel it noonu la am na ñoo xam ni wiir na leen ni bu ëllëgee bis penc am nañu yaakaar ak ñoo xamante ni bii bu ëllëgee bis penc amuñ yaakaar kon atant bi lan la dañuy xaarante nun man ak yow ak keneen ak keneen nooy xaarante mais ku dugg bàmmeel xam foo jëm summa la tarawunnaha ayna al yaqin ku dugg bàmmeel xam foo jëm lan moo tax ñu fay xaar nag borom bi daf ñuy regroupé ñun ñépp ni mu nu ko waxee ci suratu waaqia inna al awwalin wal axirin la majmuun la majmuun yàlla daf nuy dajale ci pénc ma li ma la ameel ci àq nga jël ko li la keneel ameel ci àq nga jël ko parce que àjjana kenn du fa dugg yóbbaale àqu jàmbur safara yit kenn du fa dugg ba noppi am beneen àq buñ la ameel loolu tax ñuy xaarante ba ñépp ñëw bu ñu ñëwee yàlla réglé yépp ba yépp ne kocc moo tax mu wax ko nee na damay teg damay teg dossier mawazir al qist dama koy tek dossier yeb ma genné ko atte lépp ci sama ak mandouté mu des njéggalam ak yermandem yàlla nañu ñewante bu baba aha laa yuxlifu lmiaad إن الذين ñi nga xam ne kafaru weddi nañu ñu wéddi ñepp ña nangul isa ña nangul musa alayhi assalam te wéddi woon ak ñeneen ñu dul ñoom te wéddi jamiul kufar ñoom ñepp ñi wéddi woon ñoom ñepp lan tourniya du leen jariñ du jariñ anhum ci ñoom waluhum seen alal ya ak lu mu bari bari soo weddee yàlla ba ñëw bisu pénc ak milliards yoo amoon ci àdduna milliards yooyu du la jariñ ci ëllëg yowmal xiyaam xamuloo ni alal ji fii rek la lay jariñe alal ji fii rek la lay jariñe mais fële déedéet fële déedéet dafa am nettali bu nu yàlla nettali ci suuratul kahfi te ajjuma bu nekk nun danañu jàng suuratu kahfi di liir nettali bi mais duñ ci duñ ci bàyyi xel duñ ci bàyyi xel mooy xale yi duggoon ci xuntuma te yàlla nelaw loo leen ñetti téeméeri at yu teg trois cents ans yu teg ñu nelaw ko yeewu yor seen pièce monnaie kenn ki ne moroom ji demal ca boutique ba nga jënd parce que sunu teraay bi yàgg na war na nu am lu nu lekk ba mu demee yóbbu mone ba ca boutique ba lan lañ ko wax dañ ko yuu sa waay yow sa mone bii baaxul parce que monnaie bii du jaay fii du jar fii mone bii du jar fii yomb naa wax ci ñiy voyager booy dem ci benn dëkk da ngay yóbbu devise dëkk ba monnaie yewu sa CFA fii def ko dollar wala nga def ko euro wala nga def ko monnaie boo xam ne boo demee fële changé ko moo tax boo nekkee fii ci àdduna da ngay jël sa capital bi nga am nga changé ko convertir ko tuyaaba pour boo demee àllaaxira mu am fa njariñ moo tax sarax bi boo ko joxee yàlla rek junni nga jox miskin bi rek sunu borom wecci na ko tuyaaba déposé la ko sa compte soo demee booy dugal carte bi rek xaalis bi jar foofu mooy génn mu ngoog waaye boo ne am naa xaalis nii lu ma neex laay def li yàlla tëral nga bañ ka nga bañ cee topp borom bi nee na xaalis bi lu mu bari bari du la jariñ fële lan tuxniya anhum amwaalum ak lu mu bari bari wala awlaaduhum seen doom yi lu ñu bari bari parce que dan titéro dom ñom dañ dañ daan tiitaroo doom ñoom dañ daan tiitaroo doom loolu tax abdul muttalib bako wa dëkk ba di xex moy maamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo jur abdullah mi jur sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bako wa dëkk bi di xex dafa ni yàlla may ma ci ay dom fukk fukki dom may ma fukki dom parce que dom ca jamono yooya day nekk day nekk ngànnaay boo xamante ni ku la bëgg a noggatu ñu taxaw ci pénc mi defante kook ñoom booba temps doom loolu lay jariñ moo tax mu ñaanoon yàlla doom mu ñaan yàlla doom ne yàlla may ma fukki doom yàlla may ko fukki doom ak charte ya mu tëral taxumaa jóg waaye doom yi bu njëkk da daan nekk garde nek doole ci pénc mi moo tax yàlla ni doom yi ngeen di càkkaayoo ci pénc mi bu ñu ñëwee fële munuñ fa dara te ñaar yooyu la ñaar yooyu la إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم اكلوا بري بري ولا أولادهم اكلوا بري بري من الله أي من عذاب الله شيئا اي من عذاب الله شيئا على الجي منول تري كندلو دوما في تي ادونا على المن فتح كندلو دوما من نغي سكونديكو تي على صاح توغ غور يور علال نوغوت نيت دور كو غان كو ندخ علال جي ني روسلكو ولا nga am ndomba tank nogotu gor togn ko duma ko fi mais boudé dee fële ci akhir lan tourniya anhum amwalum ak lumu bari bari wala awladuhum ak luñu bari bari min allah shay'an xamuloni yàlla ëlëk yowmal qiyam ëlëk yowmal qiyam kenn mënul jënd yàlla kenn mënu ko corrompre motax ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا إذا نزل بهم إذا نزل بهم شدة أو مرض إذا نزل بهم شدة أو مرض ولا في الآخرة عند نزول العذاب <laughs> ليلة leeg كسبرو كسبرو مسالك تمين يرأي مليار يدل جيخ mais milliards yi terewul yàlla yónni sibbiru mu ñëw mu sibbiru milliards yi terewul yàlla yónni sibbiru mu ñëw parce que sibbiru jaamu yàlla la aha mësuloo gis boroom milliard bu yàlla yebal jaamam ci kawam mu dawal oto mbëkkante ankay dogalu yàlla bi xamul alal ji moo tax lépp loo yor te dugaloo ko fi ko yàlla wara dugal fa huwa xasratun lahu yowma alqiyaama noonu lay doon noonu lay doon yàlla tudd na alal tudd na doom ndax bari na ëllëg ku tàbbi safara ci ñaar yooyu nga jaare alal ji wala doom ji bari na ku tàbbi safara ëllëg ci yooyu nga jaar moo la nax ba daane la safara mar ndax dangay yor alal ji tooñ ci gor wala nga ànd ak doom yi tooñ gor mu ngoog borom bi nee na wa ulayk ñooñu yàlla di jox alal te duñ ko sàmmoonteeg lañ ca war a def wala mu jox leen doom ñu jël jëf jël mbooloo ma toñ ci gor hum ñoom waquudu naar ñooy mattu safara waquudu naar ñooy mattu safara waxaat na ko fële ca suuratu nisa waxaat na lu ni mel ca suuratu nisa inna alladina kafaru inna alladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naaran سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب معنى نوي mattu سفر رك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ñooy mattum safara moo tax alaaji bu saaxo yàlla na yàlla yokk leeram daan na wax ni borom alal yi nañu profitoo parce que borom alal àjjana yomb na ko àjjana yomb na ko mais it safara yomb na ko parce que tooñ yàlla dafay yenn saa yi day laaj moyen te boo amee moyen bu la yàlla dimbalewul nga tooñ ko ka da bi aali firawn ñooñu seen aada li ñu tàmm def ka da bi aali na comme ni ko waa waa firawna daan defe rek la di weddi gi comme ni ñu ko defee nii dafa mel ni ni ko waa kër firawna tàmm defee weddi mbugal ci àdduna faagaagal jël sa doole faagaagal ci ku mu doon fa ngay mujj mooy yàlla jëf leen tegaw yow ke dë bi aali firawn nan la waa kër firawna defoon du ñoom rek sax di walladina min qablihim am na ñeneen ñu leen jiitu woon lan lañ defoon kadabu weddi woon nañu bi aayaati naa ci sunu aaya yi فني مج فأخذناهم أو فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم يلا جابلين أك مبغلم لوتاخ مو جابلين أك مبغلم بذنوبهم سن بكار ياتخ موتاخ والله يلا نك شديد العقاب كو ترني موي مبغلل يلا كو ترني موي مبغلل nañ ci gën a mën a bàyyi xel bu baax a baax parce que boo gisee yàlla di nettali ña jiitu woon te tooñoon te ëppoon ñu doole suñu boroom duma leen ñun ñi amul doole di tooñ war nañoo xam ne itam ndax dafa benn bis ca daara ja ñu toog di déglu rajo benn mbër di bàkku naan diw maa ko daan diw maa ko daan diw maa ko daan di bàkku ba daaneel sëriñ daara bi ni ñu kii day ki ko nëm ma dëkk lay wax ne ko duma sa moroom comme ni yàlla di def sunu boroom mi ngi nuy artu nee na Firawna maa ko daan te moo leen ëppoon lépp ñeneen ñu dil Firawna it maa leen daan kon te ngeen maa bañoo sóoru moo tax fa axadahum allahu bi dunubihim wallahu shadidul iqab xul waxal lilladina ñeel ñi nga xam ni kafaru ñoo weddi ne leen sa tuxlabuuna wa tuxcharuun sa tuxlabuun wa tuxcharuun yonent bi dafa dem badar daje faak yéefér yi ñu xare yonent bi gañe leen bi mu leen gañee ñi weddi woon te ànd ak yonent yàlla Muusa ñu leen di tudd al yahud ñu gis ne yonent bi gañe na waa makka ñu ni ah gaañi hada annabiyu l ummi alladi basharna bihi muusa ñu ne eh gaañi waa jiikat kat ak ñii gañe mooy ki ñu muusa doon wax ne moom mooy ñëw mu ngi nii moom la ñi jëkk wax loolu dafa am ñu leen découragé toujours nag loolu day am saa boo bëggee tuub dellu ci sa boroom am na lu lay découragé mbaa ku lay découragé ñii gis nañ ko ci téere bi jàng nañ ko xam nañ ko ñu ni ñoom dañuy génn ci li ñu nekkoon ndax ñëw ci waa ji parce que ki leen Moussa waxoon kii la gis nañ ko na ji najiduhu fi tawraat gaa yi ne leen ah laa taajalu bu leen gaawantu ba mu amaat beneen occasion ak gaayam yi xatta nandura ila waqaatin uxra nañu xaar beneen rencontre bu muy am ak gaay yi ñoom it au lieu ñu tuub ma ñu toog di xaar bi yàlla indee uxut xare uxut mu indi ko xare ba metti ñi àndoon ak yonent bi am ca ñu reculer wane ginnaaw maanaam def li ñoo tuddee daw ñoom ñu dellu seen kër ñu waroon a tuub dellu seen kër daldi wax ne liñ doon wax a ngi nii kii du moom parce que bu doon moom la kenn du ko gañe ci xare bi dañoo jaawale nag dañoo jaawale parce que yàlla mooy seddale victoire ak défaite victoire ak defet yàlla koy séddale mooy ndam ak ñàkk ndam yàlla koy séddale àpp ci nga nekk jullit mbaa nga nekk yéefar déedéet yàlla àpp ko ci jullit beeg yéefar bi dañuy xeex bu jullit bi amul fullaak fayda jël matukaayam def ci jomam yéefar bi gañe ko parce que yàlla mooy séddale ndam kii ndam kii victoire yàlla koy séddale boo deful li nga war a def ñu gañe la tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas yàllaay séddale tey mu jox la ndam bu ëllëgee mu jox la defet moo koy séddalee noonu mais du caagee ni damaa nekk jullit rek damaa nekk jullit dama war a gañe tout le temps déedéet yàlla dama deful noonu de moo bind yéefar bi indi ko fi moo bind jullit bi indi ko fi mooy xéewal yéefar bi même bu fekkee julliwul même bu fekkee topp ko mais moo ko fi indi dina ko jox lu mu jëfandikoo buy jongante yàllaa fay nekk ni muy soxla mom yéfer bi defet ndaxaw ma ndam non la jullit bi di soxla ndam looloo tax Seydina Omar daan wax ne li nuy gagner sunu adversaire yi nekkul ci julli gi nuy julli mi ngi ci détermination ak gëm bi ñu gëm ngëm lañ leen di gagner mais nekkul ci soldat nekkul ci armement dedet li mu nekk mooy ngëm gi ñu gëm la nuy gagner boo gëmee gañe boo gëmul doo gañe àdduna bi yëpp loolu la ngëmee yóbbu ñëpp fépp ngëm mooy yóbbu ñëpp fépp sa doom bi jàng bu gëmul jàng bi ak fourniture yoo mën a jënd prof boo ko mën a booleel bu gëmul jàng bi bu examen jotee du at mi illa bi shay'in waqaa fi sudurina la waxoon lii maye ndam mooy gëm ngoog mais ñii nag dañoo gis ne yonent bi dem na xare bale gañe bii ñu gañe ko ñu ni bu doon yeneent la toujours day gañe kon gañe biñ ko gañe mooy wane ni du yonent mooy wane ni du yonent fekk ni laata Uhud di ñëw bi ñu jógee Madina bi ñu jógee ci Badar kon yonent bi dafa dem ci marché Qaynuqa دي فوارات دالدنا يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريش إيه ين يهود قينقاع ak ñeneen ñi nekk ci marché bi jébbalu leen dugg ci diine ji balaa li dal waa màkka di leen dal yahudi tontu ko ne ko ah, bum la nax de ño ñoo xamante ni bi xex mënu ñu xex nga gagné len bu mu tax mukk nga yaakar ne ñok ñoñu ñoyam ñoñu la yarifuna yaarifuuna ne ko fa innaka law qatalna, la arafta anna nahnu da nga xamne ñun ñi نحن الناس ñun ñooy ñun te di nga xam ne lan lam talqa mislana mosoo dajanteeg ku mel ni nun ñu ngay tiitaru ñu ngay bàkku yàlla nag di leen wan ni bis bu ngeen dajeeg moom ngeen gañe ko ak mu gañe leen sa tuxlabuun wa tuxcharuun qul lilladina kafaru sa tuxlabuun wa tuxcharuun dinañ leen gañe te bu ngeen ñëwee yowmal qiyaam ma rëgët leen rëgët mooy ma yóbbu leen par force ila jahannam ci jahannam wa bisa bon na almihaadu dëkk jahannam kon yàlla wan na leen ni bu combat bi amee yéenay daanu sa tuxlabuuna wa tuxcharuun dinañ leen gañe ba noppi bu ngeen ñëwee ma yóbbu leen safara mar day ah, safara mooy kaso bi yàlla di denc ku tooñ mooy safara mooy kaso bi yàlla di denc ku tooñ bu dee fii dañuy tudd ay cent mètres di tudd ay jam fële nu mu tuddati sébeek di tudd yeneen xeetu kaso yi yàlla ci yàlla musal ñépp wante safara mooy kaso bi yàlla di tëj tooñkat yi waaw mooy safara tur wi rëy na tur wi rëy na te jafawu jara tiitloo dafa jara tiitloo alquran na ku koy wax foog nga tudd safara tudd mbugal parce que ci noonu la ko boroom tërale mu ni qad kaana lakum aayatun xad kaanan dëgg la nekk na lakum di leen ñeel aayatun lu ngeen war a tiye jël ci bind aayatun lu ngeen war a jël bind ci lan ngeen di jël bind fii fi atay ci ñaari kuréel ñaari kuréel ñaari mbooloo ñaari groupe groupe bi yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam beneen groupe yi yéeféer yi la ak waa Màkka muy ñaari groupe ñaari groupe yoo xam ne il taqataa daje nañu ñaari groupe yu daje fi atun bii kuréel tuqaatilu bi ngi xeex fii sabilillahi ngir yëkkati diine yàlla ji loolu rek moo yitteem kàddu yàlla gi daal bu mu laal suuf moo yitteem واخرى بنين كور البلي كافره دفا ودي موميت دا فاي خيخ لو تخ موي خيخ في سبيل الشيطان مو تخ دي خيخ ني سبيل الله ني سبيل الشيطان بنين بولو bi nga xamanteni bi yéefar lañu yàlla def ban mbir la yàlla def fexe na ba yéeféer yi ñoo ëpp jullit ñi wante yàlla def na ci ñoom ñaar ñaar yi ban ban la bu njëkk bi mooy yàlla roof na leen ragal ñu nekk ay tapp yàlla roof na ci seen xol ragal ñu commencé di tiit ñoom ñoo ëpp mbooloo wante yàlla def na ci seen bët yi bu ñu xoolee jullit ñi dañuy gis ne jullit ñi triplé nañ leen dañuy gis ne jullit ñi ñoo leen ëpp ñetti yoon te ñoom ñoo ëpp jullit ñi ñetti yoon loolu yàllaa ko def yàllaa ko def ah, mooy li xëramkat yi tudde karaamatul ayni masalan karaamatul ayni jommal la ci bët yàlla wan leen ni ñii ngeen di bëgg xeexal mbooloo mu bari lañu ñu xool seen bët yi mbooloo mi bari yàllaa ko defe noonu ba noppi roof ci seen xol bàqaar goo xam ni yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim suñu déggee ku kañu sax daw nañu suñu déggee ku kañu sax daw nañu te jàmbaar day kañu moo tax yaraw nahum gis nañu jullit ñi mislayhim ñu duble leen deux fois yéefar yi nekk nañu ñetti yoon li jullit ñi nekk ndax nekk nañu juróom-ñeenti téeméeri yoon ay nit juróom-ñeenti téeméeri nit masalan yu topp jullit ñi nekk ñetti téeméer yu topp kon ñële ñoo leen ëpp waaye ci ragal gënu ragal ak yàlla ni mu tërale xare bi tax na ñoom ñu jàpp ne ñoom jullit ñee leen ëpp yàlla wax na ko yàlla wax na ko ci fële ca suuratul anfaal wa id yurikumuhum إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم سنو بروم نينا مالين ومات بانجين داجي نجين سينن تجيسنت ما فخي بيين بانجين جيسي يفري نجين نيني داي دونيو دارا نيت نيو توتي لنيو نيو ميت نيو جيسني يين دونيو دارا ma fexe ba ngeen tampo ndax am na lu ma bëgg wane te bëgg naa mu nekk li yaqdi allahu amran kaana mafuulan li yaqdi allahu amran kaana mafuulan am na lu yàlla bëgg def bëgg koo wane wane ni diine ji mooy not yeneen diine yi mooy féete ci kaw mbooloo mooy not looloo tax mu defe noonu kenn ku ci nekk yàlla fexe ba nga ñemee sa moroom tampoo am waaye terewul ñële ragal a ngi ci ñoom ragal a ngi ci ñoom jullit ñi ñoom yàkkamti na nañoo yegg ba dem aljan mu ngoog xam nga ni ba ñu tampoowee yàlla jël ndam li jox ko jullit ñi néew mbooloo ba noppi dem ca xare ba gañe wallaahu yàlla yu ayidu mooy soutenir bi nasri yi ak ndimbalam man yashaaw ku ko soob inna fi dalika nekk na ci lii ma la wax la ibratan kéemtaan li ulil al li ulil absaar borom ñeel borom gis-gis yi tabaarakallah dañuy taxaw bàyyi Thierno Saadu xaaji Thierno Saadu mu tënkal nu xabaar yi ñu dellu siwaat incha allah baadahu Il est 16h, voici le Flash Info. Euh, la présentation, c'est de Nourouba En conférence de, presse à l'instant, Maître El dénonce une cabale euh, contre une entreprise légalement installée au Sénégal. Sans lui, le dossier euh, des médicaments frauduleux est vide et qu'il ne s'agit nullement d'un trafic de médicaments sous la coupole de Chinois comme on le soutient. Vous entendrez dans nos prochaines éditions Maître Elage Diouf. Le professeur Abdounian, élu à la présidence de la commission dialyse de la Société internationale de néphrologie, le professeur Nia devient ainsi le premier ressortissant d'un pays à revenus faibles et intermédiaires à occuper cette fonction. Il promet de mobiliser des personnalités politiques, culturelles, scientifiques, africaines et internationales pour progresser dans la réalisation de la vision. Ziguinchor, les 25 détenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa Bayot ont mis leur menaces à exécution. Ils ont entamé ce matin une grève de la faim illimitée. C'est pour exiger l'ouverture de leur procès plus de trois ans après leur arrestation ce matin. Parents et proches se sont regroupés devant la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor en guise de soutien à ces détenus. Tous interpellent les organisations de défense des droits de l'homme. bas. La devanture de la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor a été prise d'assaut ce matin par les parents et proches venus témoigner solidarité aux 25 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa. Damsir Bodian, jeune frère d'Ampoui Bodian, vient de sortir de la prison. Il confirme que son frère a démarré la grève de la faim. Oui, je confirme qu'ils ont démarré la grève de faim. On est entré à l'intérieur, on a fait appel à eux, mais bon, ils ont refusé de sortir catégoriquement. Du groupe de ceux qui sont venus apporter soutien et réconfort aux grévistes de la faim, il y a Ousmane Sané. Il vient de Toubakouta une situation très difficile. Vous ne pouvez pas retenir des gens pendant trois ans et sans jugement. Et s'ils demandent une liberté de provisoire, ils refusent. Et nous ne comprenons pas cette situation. C'est comme s'il y a une justice pour les faibles. Odette Colli, l'épouse de René capin Bassin est sur les lieux dès les premières heures de la matinée. Bien sûr que ça m'inquiète. Vous savez, rester sans manger, c'est pas, ça, ça va, ça peut nuire ta sa, santé. Non seulement les conditions qu'il est en train de vivre ici sont vraiment, voilà, vous savez les conditions de, de la prison, comment, comment, comment ils sont. Tamsir Bodjan, jeune frère Bodian sollicite l'implication du chef de l'État dans le dossier. Nous disons au, président de la République vraiment qu'il qu vienne en aide. Ils ont besoin d'un procès. Il faut qu'il les aide sur ce procès-là, car bon, emprisonner une personne pendant comment dire, trois ans, quelques mois, bon, c'est vraiment très difficile sans procès. Ousmane Sani de Toubacouta lui pense qu'il est temps que les organisations de défense des droits de l'homme s'intéressent au dossier des personnes arrêtées. Et nous interpellons à ces organisations de droits de l'homme vraiment de veiller par rapport au respect strict des droits, parce qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas une justice à deux mesures. C'est des sans pour moi, à mon avis, qui ont retenu. Et jusque là, rien n'a été fait sur le dossier. Cette grève de la faim est la première forme de protestation menée par les 25 détenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa. Reste à voir si cette action va suffisamment peser sur la balance pour la tenue d'un procès, comme il ne cesse de le réclamer. La mine Baz, Guinchor, Radio Futur. Le président du Forum du Justiciable dénonce la détention prolongée des personnes arrêtées dans l'affaire des événements de Bofa Bayot. Babakarba demande une réforme du code de procédure pénale sénégalais pour que le délai raisonnable soit fixé à deux ans en matière criminelle. Le capitaine Alioun, Ndiaye a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de chef de la section de recherche de la gendarmerie de Koloban. Il remplace le commandant Abdou Mbeng. Le capitaine Alioun était jusque-là le commandant de la brigade de gendarmerie de Tchonk, ici à Dakar. C'est la fin de ce Flash Info. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Madin qui a assuré la partie technique. Je vous reviens d'ici 25 euh, minutes pour l'édition Wolof. Restez en compagnie des programmes de la radio que vous avez choisi, la RFM. Rabank les grands moulins de Dakar magnifient le travail de nos chers éleveurs en ce mois béni du Ramadan. Les grands moulins de Dakar vous souhaitent un bon Ramadan. rabank. Elle a toujours été à mes côtés, ma banque. Pour la scolarité des enfants et pour l'achat de ma maison, elle était là. Pour ma création d'entreprise, elle était encore là, anticipant tous mes besoins. Elle est vraiment là pour moi. Grandir ensemble, être attentif à votre bien-être, vous apporter de nouvelles solutions. Tels sont les engagements qui chaque jour nous motivent à vous donner le sourire. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. InshaAllah, nous euh, ñu gërëm suñu partenaires yi ci euh, Grand Moulin di may InshaAllah, yi nak inshallah 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 inshallah mais la lolu ñu ci kàttanu yàlla mooy bis bi nga xam ne euh, waa aar daara incha allah ci la ñuy jox daara gëddaam euh, bis bis bu nga xamante ni dañuy feeñal lu baax li daara liggéey mais ñu koy defee fële ci Tëngéej su ko defee nag loolu bés la bu nga xamante ni bi euh, daara dana ca feeñal yi mu def parce que am na ñu nga xam ne benn bët la ñuy xoolee daara di xool rek yenn njuum yi wala yenn euh, yi yi jaaduwul yi nga xamante ni bi day am ci daara bañ tax ñu jàpp ne daara yépp noonu la mel fekk daara euh, li mu baax le moo ëpp li mu ñaaw ñaawle su ko defee nag ñoom waa daara ñëw taxaw nag fas yéene wane ñoom yi ñu baax le ak wane ñi wane yi ñu bon lee nañ ciy boolee di wane yi ñu baax le incha allah muy am ci tëngéej incha allah euh, loolu nag fekke ko Euh, sagal daara la surtout ci weeru koor bi xam mooy weeru alquranul karim nit ñi di ci jëriñ ci alquranul karim loolu tamit lu mët a bàyyi xel la beneen bi ci des mooy euh, ñu fàttali nit ñi ne incha allah salaatu tasbih bi ñuy organiser ci kàttanu yàlla dañ koy organiser bu sobee yàlla la premier mai ca fële ci yaraax ñu ngi ci sàkku teewaayu ñëpp incha allah di ko yëgal ñëpp amul ay daanaka nag ay invitation euh, dañuy woo ñëpp ñu ñëw rek kuy ñëw mu respecté rek li nga xam mooy mesure barrière yi takk sa masque yor sa siyaada yor sa gel bañ a accolade bañ a lii toog rek jàmm yàlla 9 ci suba gi lay commencé incha allah 13h30 ñu libéré ñëpp ci kàttanu yàlla incha allah euh, su ko defee noonu lay demee. Euh, di ci woo ñëpp ñi nga xamante ne bi bëgg nañoo jàpp ci organisation ba tamit euh, ku ma ci woo rek ak loo ci mën a jàppee incha allah ñu walla la ciy xaar ci 88 628 14 14 incha allahu taala ñu xaar leen ci ci loolu ci daara ji incha allahu taala kon mu ngi noonu euh, bés yooyu la xam nga weer wi weeru weeru wut tuyaaba la weeru wut tuyaaba la te jamono bi toll na fu nga xamante ni bi dañuy soxla di ñaan pour din jóge ci ay jafe-jafe yooyu yëpp incha allahu taala kon nag mu ngi noonu ñu xaar ci nit ñi ci téléphone yi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 incha allah euh, ñu bokk ak yéen daara ji euh, ku ci ñëw rek ñu mën ko jël incha allah bés la nag amadi ci bés yi la mooy euh, le premier mois boobule.

maa ngi ñu ngi la koy fay bu baax a baax kan la. Makhtar doo wàññi rajo bi tuuti rek. day wàññi rajo bi rek déglu téléphone waaw waaw ci Kobongoy. Kobongoy. waaw ci côté Joal ñu dëkk Xoos Koto ca Saloum. macha allah Makhtar na def. ñu ngi sant yàlla lu bari. naka waa kër gi yëpp. ñu ngi fii ñu ngi fi di la kontaanee rek. jërëjëf jërëjëf Makhtar. heure bu ne ñuy bëgg di dugg di leerlu lu bari ci li ngay def di bari ñun dañ ciy jàngee lu bëree bëree bëri. alhamdulilah Makhtar. man moom yàlla def na tey waxtu yi ngay wax ci rajo bi li ma ciy tardé bariwul muy fajar gi wala ngoona ngoon geeg uh, ajjuma yeeg yooyu. Kobangoy ci ban côté la nekk. Kobangoy mu ngi ci côté Tamba Dia da ngay dégg Tamba boo ñëwee ba Joal da ngay mel ni ku jëm Fimela. macha allah. boo ñëwee Samba nag deux kilomètres la ak Samba Dia. mais foofu xanaa war na am paañ de. ah. foofu am na paañ de ah paañ. ah <laughs> waaw non fi ñu ne moom ay mango moo fi ëpp ay mango. <laughs> waaw waaw man Dakar laa nekkoon mais xam nga rek def naa fi léegi tey deux ans quoi dañoo mujj di def ci lii pulaay naar laa fi wax yal na yàlla yàlla barkeel waay. maa nga dëkk nag Fos Koto ca côté Nioro Mamadou Ndeye. Fos Koto. waaw. <laughs> waaw kontaan nañ ci yow lool. bég bég nañu lool Makhtar kontaan nañ bu baax. jot gi ma la jot kontaan naa ci lool da la ñaanal yàlla. man mii tamit bég naa lool Makhtar. yàlla yàlla gën lay taxaw. te sàmm ñu amiin Makhtar amiin amiin yaa rabbal alamin amiin. maa rabbal weeru koor bi. jazakumullah yaa Makhtar. ñu ngi bég bu baax ci 88 628 14 14 incha allah di ziar suñu auditeurs yëpp rek ñi nga xamante ni bii ñoom ñoom ñoo bokk daara ji eh, di leen bégee macha allah. Euh, Amady maa ngi doon wax léegi ci bisu salaatu tasbih bi ñuy organiser euh, di ko def ci yaraax la premier mais incha allah di ci woo ñëpp euh, ñëpp ñëpp ñëpp rawatina ñi dëkk yaraax ñëpp ñu bokk kook ñoom imaam yaak boroom xam-xam ak ñëpp ndax noonu la daan demee macha allah ñu ngi woo ñëpp di ci fàttaliku nag ci ñaan sunu mbokk imaam Madické Sall ndeysaan yal na yàlla yërëm ko moo fa daan jiitu. buñ ñëwee bu ñu paree mu defaat ñaan macha allah ren ma nga ca sunu boroom yàlla na ko sunu borom yéegi ci àjjana yi gën a kawe. yàlla na ko sunu boroom yéegi ci àjjana yi gën a kawe macha allah su ko defee bis la rek boo xamante ne bëccëgu alquran la bëccëgu zikkar la salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. waaw kay sëñ waaw kay kan la. wàññil wàññil rajo bi tuuti rek. baax wàññi rajo bi tuuti rek ma sëñ bi. waaw waaw fay naa ko. tur bi tur bi nan la tur bi nan la man la Abdoulaye Sarr sa taalube. Abdoulaye. Sarr. <laughs> sa taalube. non kon du ma la wax dara quoi. damaa gën a miin nag ñu may ñu may wax oustaz waaye woo tur ñu ma ko wax fi yow. ankay ankay ankay ankay oustaz Abdoulaye Sarr. Eh, waaw waaw nekk nag koo xam ne nangu naa daal nga moom ma man. ndeysaan da nga eh, sant ginnaaw bu yàlla. jërëjëf jërëjëf Sadio dinaa déglu nag ñu bari du li fi ñëpp waaye daal macha allah tafsir bi ngay def. jazakumullah na xeer ya Abdallah. Euh, yal na yàlla wéral cër yi. amin amin amin Saar amin Saar. Euh, yokk xam-xam bi. amin Saar amin Saar amin Saar. jërëjëf euh, man de am naa yaakaar ne boo nappee soo ñaane ci mbas mi na jëlee. yal na nu yàlla rus ba ñu moo loolu ñuy organiser ñaan boobu ñuy organiser. ah yal nañu ci yàlla yóbbu. amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin incha allah su maye wér dañ fa teew. alhamdulilah Sarr boo ñëwee ñu gisante kontaan naa ci jot gi ma la jot nag loolu wax dëgg yàlla. jërëjëf Sarr jërëjëf Sarr sant yàlla sant bu baax di ñaan yàlla daal. fan ngeen fan man nag maa ngi maa ngi biir Dakar. maa ngi biir Dakar macha allah macha allah waaw ah, ah, waaw maa ngi sant yàlla baax de sant. jërëjëf Sarr Sarr kontaan naa baax ci tafsir bi. jërëjëf Sarr di ñaanal mboolem ñu nekk ci taw yi ñoo ngi leen di ñaanal allah bàyyi leen fi. amiin yaa rabbal alamin. jërëjëf jërëjëf Sarr ñu ngi bég bu baax Sarr ñu ngi bég bu baax. di bég bu baax ci suñu mbokk boobu la Oustaz Abdoulaye Sarr. Euh, Amady xam nga dafa am benn année. mu euh, am ay ñu sa ñu sant Sarr nag sant ma conférence ma leen di defal benn conférence Euh, ci trois heures ñu xool seen moom trois heures rek ñu jóg di séddale tàndarma ndogu yi <laughs> trois heures <laughs> ñooñu du wax nag ban koñ la nag mais bu ñu bu bu ñu kiyee nag ma génne preuve yi ndeysaan yal na yàlla yal na yàlla fay yiw euh, Amady man euh, ki jur sama yaay Saar la sant ndeysaan moo tax ma ñoom dañu am ay ay ay ay ay relation yi dëgër a dëgër a dëgër moo tax dañ leen di ziyaare bu baax te ñi ma dëkkal ñëpp tabaarakallaahu ñoom ay je suis par des saar macha allah ñuy nit ñu baax ñu ñu bëgg lu baax di tabaarakallaahu macha allah moo tax euh, ñoom bu ma leen gisee damay damay bég moo tax Oustaz Abdoulaye Sarr bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaara bu baax a baax nag di bég ci dugg gi mu dugg macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi ok yaa Cheikh. xam nga kan xamaguma ko de. sa genn sa genn wàll bi nekk jigéen sor. ñu koy wax Assane Alhassane Ndiir Alhassane Alhassane Alhassane. Alhassane Alhassane Ndiir. genn wàllu moo caam. waaw wallaay maa ngi lay ziar bu baax mbokk de. genn wàllu oustaz moo caam naka waa kër gi. yàlla xam na ni ma ci ci njal benn koor gi rek sama xel a ngi ci yow yàlla xam na ko. dëgg la ndeysaan dëgg la dëgg la. maa ngi lay ziar bu baax macha allah. waaye nag xol yaa ngi gisee moom. bu baax a baax alhamdulilah wallaay wallaay Alhassane jazakumullah xayran. fajar gi dara duñ ci rëcc. jërëjëf Ndiir jërëjëf Ndiir. noonu naa doon naa la woo sax ci sabul mubiqaat bi waaw nga eggale ko <laughs> macha allah. xam nga xam nga xam nga engagement bi nga am fi mu ne moom la Ali Imran di wax. wallaay ndeysaan. engagement xam nga lislaam dafa laaj engagement. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ngir jëlee fi lu bon. dëgg la walaay dëgg la oustaz. taxawal taxawal lu baax. taxawal lu baax macha allah. loolu engagement la laaj. dëgg la walaay dëgg la. moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ak sahabatul kiram ñaandoon moom radiyallahu anhum ajmain mm-hmm. en 23 ans ñu taxawal nañ taxaw taxawal waaw ñun 23 ans ñun ñaata lañ def ñun ñun ñun 60 ak léegi rek ñaata ñaata at la dañoo taxaw di werante ba tool bi boy ah waaw mu ngoog tool bi bëgg boy maar day taali maar day taali kenn war koo nangu ah dañuy bañ ñun ñëpp dañuy bañ ñun ñëpp dañoo war a gëm ñun dañoo war a fekke ndamal l'islam wallahi ndeysaan dëgg ci Sénégal ci Afrique ak ci aduna bi alhamdulillah ndir motax gis nga dañuy wax ni Ali Imran bi nga nek hmm. góor gu ne war na koo mokkal. wallaay alhamdulilah ah. waaw ñu ne sóoratu nuur nag jigéen ju ne war na koo mokkal. ah moo tax ñu koy kocc koccal ndànk di ci jàng. noonu la ma ni ñu ngi ciy bég. alhamdulilah Ndiir na ci yàlla bég. amiin na ànd ak ngërëmal suñu borom. subhaanahu wa taala amiin ustaad amiin ustaad. Eh, koor gi ñu nekk yàlla na ñu yàlla dimbale ba ñu màng tuyaaba yi ci nekk yëpp. amiin ya rabbal alamin ustaad. yàlla dimbale ñu màng ba màngaale tuyaaba yooyu xadar. amiin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. dara bañ cee def ñu leen di ziar di leen gërëm di wax ni ñu ànd ak yéen saa su ne nag. jazaakum laa daa xayran Ndiir. fajar gi moom mënuñoo toog te moo tax point par point loolaal <laughs> ñun waa yaraax ak waa daara yeeg mbokk yëpp dinañ ko dégg bu sa te ñun nag aussi soxna ngaati ngaati de koor gi secret bi bu ma koy bu ma koy woo koor gi sax du mën wuyu bu baax dëggal loolu dëggal loolu waaye jàmbaar la nag jàmbaar la ku bëgg koy koy ni ngi koy cité ci ci bu ne nga ni soxna ngaati ma xam ni ngaati la mooy secrétaire bi ci alquran mi ngi bëgg rek mi ngi bëgg wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa barakatuh ndeysaan Oustaz Assane Ndir ku baax ndeysaan ku baax ku bëgg lu baax macha allah di orienté ci lu baax yal na yàlla Sénégal ak a bëri ñu baax ak a ñu baax macha allah yal na yàlla fay leen yiw macha allah soo déggee kàddu yi rek da ngay xam ne ku diine ñor la da ngay da koy dégg yàlla na yàlla dëggal loolu te def ko ci biir misaanu xasanaatam ak suñuy misaanu xasanaat ñun ñëpp yàlla defal ñu ko macha allahu taala diine Sénégal amul lu ëpp diine eh, amul ñu lu ëpp diine. Euh, ci Sénégal ngay gis ku ñëw xaaj këram def ko jàkk wala mu jël këram def ko jàkk biir këram mu créé fa jàkk ay doomam mu yóbbu leen ñu jàngi alquran parce que dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lu baax waaw da ngay dañoo dañoo bëgg diine ba kuy dem di aji màkk sax bu lay tàggu danaa la damay dem ziyaara ji yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ngir bëgg diine rek tabaarakallah yal na yàlla yal na yàlla fay ñëpp yiw mais yooyu yëpp nag dañ koy gërëme mag ñi nga xamante ni bi ñoo ñu jàppaloon mbir mi ba ñu yegg si mag ñi xam ñoo ñu jàppaloon mbir mi ba ñu yegg si dañ leen koy sant gërëmee leen ko macha allah 88 628 14 14 di nuyu sëñ Aliou Cissé suñu wëllëre boobu nekk fële ca euh, Leeraan Samb seen taalibe Serigne kër ñoom oustaz Modou Ndiaye Gayni Mbaar ay asaatida yu amul morom macha allah ñoom oustaz Yaquba Jeeju tabaarakallaahu ñu nuyu leen ñoom ñëpp ziar leen tabaarakallaahu ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa Cheikh. oustaz ok tur bi Aline Gueye talib sëñ Mor Diop Bal ah allah xarit sëñ Maxtaar Diop waaye ak soxna Seydou yaa ya Bal ngi dem Bal dimanche soxna lay nuyu koy bu a baax a allah eh est ce que ci yow bu baax fajar ak nga kontaan nañ ci yow bu baax a baax kontaan nañ ci bu baax a baax. na nañu bu baax di nuyu soxna Zeynab bu baax a baax bàjjen Zeynab. wallaay wallaay loolu loolu ngay wax ci dëkk jàkk ci sa kër. ah am na sama benn xarit bu El mi ñuy wax El Hadj bu ne Almadi. Mhm. noonu la def ci këram. macha allah léegi nag ci këram dafa day jaare ci mbedd bi ñëw jàkk ji. est-ce ndax bañ ko xam ni moom moom jàkk ji rek. allahu akbar. <laughs> mooy comme loolu nga wax rek. nit ñi bëgg nañu diine de. wallaay wallaay wallaay fan yi ci baase dafa am benn mbokk bu defar jàkk ju baayam doon jàngalee daara ci biir kër gi mu defar ko jàkk woo ma ca ma ñëw fekk si julli ga est jàkk jaa daax kër ga wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu bég ci lool si yàlla ñu ngi lay ziar bu baax a baax macha allah ndeysaan euh, Bal Diop

allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. maaleykum sëñ bi ñu ngi lay siyaar. ñu ngi lay del delox ndongali rek. déedéet. waxal ndongali rek moo gën a yomb. déedéet déedéet. ñu ngi bég bu baax waaye sëñ bi na ngeen def. siyaar bu baax si weer koor yi. tur bi nan la. Babacar Ndiaye. sëñ Babacar na nga def. en tout cas dafa dafa jaam rek. alhamdulilah foo ñuy woowee Babacar. alhamdulilah. fan nga nuy woowee Babacar dégg émission mu neex ma lool. wala xaaral ma xoote tey tey jii. jërëjëf jërëjëf Babacar. jërëjëf ñu lay ñaanal fan gu yaram. yal nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp macha allah. yal nañu ko yàlla boole defal macha allah yal nañu ko yàlla boole defal. macha dafa mel ni Amady rëcc na de ah. ñu ñaan ko yàlla yàlla yàlla yokkal ko wërsëg wu yaatoo yaatu ba buy wootee dara du dagg boole ci wiir nag. boole ci wér boole ci aw fan wu gudd gudd yàlla na ko yàlla defal defal ko mbooleem suñuy auditeur ak jullit yéeg seen eh, sénégalais yeeg umma bi yëpp yàlla na leen ko yàlla defal yi gën a jafe mooy wér ak yor yàlla nañ ko yàlla defal dund ci loxo yàlla nekk yàlla nañ ci yàlla may macha allah ñu ngi leen di jéglu di joxe rendez-vous incha allah ci kanam tuuti eh, ak eh, suñu émission ndogu ak RFM Euh, ci mais bu 17h jotee incha allah oustaz Moustapha Ndiaye dina fi ñëw ci njàngalem koor euh, yenn laaj yi nga xamante ne bëgg ngeen ko leerlu bu ngeen ko woowee bu soobee yàlla dina leen ko leeralal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam euh, dinaa di wax ne émission bu matti di déglu la parce que dafay jàngale jàngale yu am solo yal yàlla fay ko yow macha allah oustaz Moustapha